Uras Info Ribari Gao gaaw Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info Le président national bi dañ fi déclaré ne dafa Donc, comme association nañ du association de am et règle da ngay nekk membre ni ngay membre droit yi ngay am devoir yi ça. Les président bi ak membre bi tout ci association ñoo am droit ci association bi su fekkee conditions yi su fekkee président bi dafa démissionné bal boobu dafay l'association ci ci association bi sëriñ bi nag bi waxtu di demee ba àgg ci moom te yeneen rumeur amoon na diw lañ dénk diw lañ fal diw lañ fal du ma ci kenn yooyu xewoon na fi am sax déjà ñu annoncé woon publier ko ci internet bi waaye bu benn responsable ansaaru diin bu démentir wala mu dëgër dégguñu leen leen sax dañoo toog rek parce que xamoon nañ ci lañ nekk association lañ sëriñ bi nag gannaaw gi di defee constat bi oote na suy oo association tam am comité directeur bureau am assemblée générale am ñoo ñooñu ñooy instance yi nga xam ne ñoo amee association bi du keneen te sëriñ benn patron lañ am mooy xalifa bi bi mu déggee wax ji mu oo instance bi di instance bi ñëwee ñu ne ko ñun yëguñ dara vraiment

su président bi fi nekkee mooy toog ci wetam di liggéey gis ngeen ne gàmmu gi man ngeen man kenn ngeen di gis te président bi mu fi donc pouvoir bi ci taxi ba la nekk may ànd ak moom su teewee may toog denn moom maa koy dimbale ci exploiter plan d'action ci liggéey su utee may toog place loolu moo indi bim mu utee xalifa bi dama toogal place dama ne woon toog place am pour intérim te man gëm naa ne assumé naa intérim bi parce que am na benn semaine boo xam ne su amutoon ku téewoon intérim bi heure bi lii du fi taxaw looloo taxoon sëriñ bi ne naa téye intérim bi ma téye ko dara xew ñu liggéey ba bi yàlla dogalee lim dogal le président dellu si ci chaise bi toog ci ñu jug ci chaise bi dem toog ci chaise bi mu toogoon ci gannaawam mu ne ñu nañ continuer piloté moo tax dégg ngeen ay information xëy ci gémmiñam ngeen ko dégg Cheikh mu naa démb dem na ci Alfayda def na passage foofu ñëw na fi tey tey def na fi ay passage gis nañ ko ci internet bi muy apprécier suñu taxawaay ak suñu liggéey ak suñu góorgóorlu mais nag moom la ñuy gërëm te mun moo elloo gërëm parce que ñun fu ñu tudd rek moo ñu fa ebal su ko neexoon mu yónni keneen kon nag loolu rek la pour mu leer problème amul président national bi Cheikh Mouhamed mu nga xam ne naa la sëriñ bi confirmé na ko pour mu ñëw àggali mandaam moom daf doon ñaan pour dem defi leneen parce que charge bi bëri la ko sëriñ bi dénk sëriñ bi nee na mu des àggali bi ñun ñu ko doon jàppale nañ ko jàppale ko kon léegi Ansaarud-Din national euh, Cheikh Mouhamed Niang mooy président président Cissé Niang moom jiite département de Kaolack di euh, président zone siège bi di coordinateur bi di premier adjoint bi yore pilote bi mmh. loolu mooy question bi su fekkee benn question léegi comment comment si organisation bi foofu du am. non non comment Ansaar Dine amul problème. Hmm. ndax membre yi comment fii membre yi Ansaar Dine la maanaam membre yi Ansaar Dine ñooy ñooy ñoo amee comment. dañoo partagé rek dafa mel ni commission la suñ ko mënoon a tuddee comme sëriñ bi comment la ko tuddee comité d' organisation nangam nangam loolu la ñuy wax waaye suñ ko mënoon a tuddee dañuy wax ne rek comité d' organisation bu Ansaaru Dine di loolu impôt mais te que taalibe yi bëri ñoo xalaatu ne benn bi est-ce que mënuñu dindi benn ko Ansaarud-Din mu ngi dindi benn bi mu taxaw ñaari tour la mais benn benn démarche la maanaam ñun ñun jaxasewul ñun ñun ñi nekk te hmm. maîtriser données yi hmm. amul problème hmm. mais daal commission culturelle lu ngeen fi gis loo xam ne lu aju ci culture la tam rafet ñoo carte invitation yi imprimé wuñ carte yi defaroon nañ ko ba partagé ko Euh, problème mu rupture boobu xeexoon taxoon na mënuñ dem ci imprimerie mais données yi mu ngi fi soo demee ci carte boobu ci ci ci ci ci biñ partagé woon te commission culturelle def ko da xam ne li fi feeñ nii yëpp commission culturelle ak commission communication ñoo doon lëkkaloo di liggéey ci ñoo tëral conférence yi te léegi mise en place bi ñëw nga gis programme culturel tàmbali ñoo ñoo ñoo tëral lépp loo xam ne luy aju ci culture la commission culturelle joué na le jeu te lii tax ngeen man maa wër di ma kon commission communication moo def liggéeyam moo leen dajale moo leen nengam moo leen nangam moo leen oo moo ubbi benn plateforme ku ci bëgg liggéey ci yéen ñëw ci donc te ñaar ñooñu ñoo amee daanaka kii bi ñun dañuy coordonné mais ñaar ñoom daanaka ñoo yore journée bi commission communication ak commission culturelle donc foofu su fekkee amul lenn loolu ci la. guddi gi dana yéeme guddi gi dana yéeme ndax commission dama bëgg a bañ a génnee lan ci commission culturelle bi six conférences teg yoo xam ne bu ci nekk kenn ki rek mënoon naa def journée bi yëpp tey programme tey la kon du ma comme du ma génnee lan ci commission culturelle bi dama a def affaire journaliste waaye daal mën naa wax ne am na six conférenciers mën naa wax ne bu fekkee six jotaay la ñaar yu mag kalifa bi dana ko présider te loolu lu yéeme la moo tax taalibe yi damay wax ne bu leen 17 heures fekkee ci biti ci am problème convoi ba ma bàyyi Medina ci bayaal bi waa Mauritanie ëpp ci waa Côte d'Ivoire ak waa Nigéria nekk ci suñ ñëwee fii te ñoom duñ dugg ci jumaa yi ci tente bi la ñu dugg sénégalais yi duñ am place kon nag damay def appel rek pour que ñu préfité dugg te ñu ànd ak yar ànd ak teggin comme ni ko xalifa bi di waxee te ñu xam ne joxe loxo bi amul sens ku ne fi nga toog jàppal ne jox nga sëriñ bi loxo nga yéene si soxla di julli ci yonent bi di ñaanal suñu sang muy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di ko gërëm ci nit ñi def ba fexe na ba kenn yabuñu ñu fexe ba bu kenn yab Cheikh Ahmad Boucar bii Taïba Niangène ak lépp lu ci aju moo jur alaaji maam du ñang am na ñuy wax ne lu tax Amady Bukaar ak alaaji maam Amady Bukaar mooy grand-père alaaji maam Amady Bukaar mooy xalifa alaaji Abdoulaye Niass al jëdd moo nekkoon moom ba mu bind leerta ne su fi jógee Amady Bukaar bi mooy suma xalifa waaye ku nekk xam na xali maanaa xalifa bi doon wax ku nekk xam na ne maam alaaji Abdoulaye doomam yu mag yooyu ñooy xalifaam ci lim fi mu doon wax waaye fi mu doon wax ci Amady Bukaar yi Amady Bukaar moo fay xalifaam donc kon parrainage buñ ko joxee Amady Bukaar alaaj maab lañ ko jox maanaam doom ak bàyyi man buñ ne woon sama doom Mouhamadou Habib lañ tuddee Taïba Niassène ni ñi naan man lañ ko waroon tuddee xam nga du ma mer damay gis ne sama doom lañ tuddee man lañ tuddee donc Amady Bukaar lañ tuddee bàyyi ma Abdou Niang mi àndoon ak bàyyi su fekkoon ne tey dañ ne dañuy joxe ki ànd ak bàyyi la ñuy jox suñ juumoon jox Amadou Boucar sax ki ànd ak Baye lañ jox ndax Amadou Boucar moom meññ maa bi donc kër Amadou Boucar lañ jox ak Serigne Ousmane Ndiaye mu mag ak Mame Ibra Fall ñoom ñett ñoo parrain yi bu ngeen gisoon carte bi ñu doon partagé ci internet bi biñ amoon ñun nga xam moom moo waroon moom la ñu waroon a imprimer seen ñett photo yi ñu ngi ci Amadou Boucar amul photo waaye photo Khalifa am lañ ci def Serigne Ousmane Ndiaye amul photo Khalifa am ci def Ousmane Ndiaye ak mbay Ndiaye seen photo yaa ci biir carte boobu maam Ibra Fall am na foto photo mën a dàng ca foto kii ba pare texte sëriñ bi moo leen bind lettre yónnee ko seen taw yi ne leen yéen lañ tuddee donc ñett ñooñu ñooy pare yi waaw ñu ngi gërëm di sant a téeméer kàddu yi foofu di leen gërëm ci opportunité bii ngeen ñu may pour ñu jàkkaarloo àddina bëggal taalibe yi dina leen fàttali bés Mawlana Cheikh Ibrahima ñërë ngeen jëf Uras Info Ribari Gao Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu te notre force le traitement de l'info